déglu nañ euh, liggéeykatu UNO déglu liggéeykatu AGETIP déglu itam liggéeykatu Total mbokk yi système bi doon xeex bokk na ci li ko màndargaal noot bi ñuy noot liggéeykat yi système bi bokk na ci li koy màndargaal ni ñuy nootee liggéeykatu Sénégal ni ñuy nootee katu Sénégal euh, et donc bu ñu waxee dañuy xeex notel bi foog ñu xool naka la ñuy améliorer condition liggéeykat yi il faut que nooteel boobu jeex il faut que entreprise yi respecter droit du travail il faut que respecter respecte respectent sañ-sañu que yi président Bassirou Diomaye Diakhar premier ministre Ousmane Sonko le gouvernement bifek a une bombe économique la ay bombe sociale la bombe environnementale la bombe financière la bombe dans tous les secteurs bokk na ci bomb yi les bombes sociale mooy li ñuy waxtaanee tey jii bokk na ci bomb yi chaîne yi nga xam ne jatang yi nga xam ne moom la ñu jatangee liggéeykat yi entreprise yoo xam ne dañuy signeloo ay contrat ay liggéeykat ne du ngeen sax liir contrat bi dañ lay jox kayit bi ne la signel doo ko sax liir

yow boo demee tribunal doo fa mun yóbbu en fait contrat buñ la waxee nga indi preuve ay wax rek ngay wax lii yii yii dafa war a jeex donc dafa am solo bomb yi nga xam ne moom la fi président Macky Sall APR ak Benno Bokk Yaakaar bàyyi bomb yooyu yëpp président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko bu dee ñoom rek dinañ ci gis lu bari waaye baax na askan wi génnee ko

y a yàgg ngeen dégg ñu toog qui ay liggéeykat mais may poser la même question ndax ci gouvernement président Macky Sall est-ce qu'il y a un ministre du travail est-ce qu'il y a un ministre du travail dans l'avion y des filles qui ci siège bi may poser la même question ndax jafé jafé yi au Sénégal di jankontel mel ministre du travail amul c'est l'occasion di massaou inspecteur et contrôleur du travail est-ce que xam savez inspecteur ak contrôleur du travail buñ ko boolentee bu ñu motee ci la yem te inspecteur ak contrôleur du travail naka la ñu inspecter ci nu mu entreprise yi ndaxte def ay descente inopinée le fa xew liguey yi euh, en fait direction bi mais mel Sénégal 18 millions de citoyens sénégalais ñu ne bo limu inspecteur du travail ak limu contrôleur du contrôleur du travail motuñu 100 xam ngeen ne kon liguey bi dina am jafé jafé pour mu ñoŋ duñu mën dem ci entreprise yépp bo ci les nak ni mu amé ci groupe yépp ay corrompu non la amé ñenn ci inspecteur ak contrôleur du travail ñi nga xamné d'accord nangu nañ 1000 francs pour tok nopi baña def seen liguey wala bind lu leen neex ginnaw seen contrôle lolu day gëna métital situation kat yi mbokk yi ñun ñoko ko euh donc bokk na ci liñu fi indi jappelé président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jappelé premier ministre Ousmane Sonko bokk na ci ne leen ah lii am na mooy informer leen moo tax lii am solo day profito nag waa liggéeykatu total dama leen di ñaan ngeen bañ a wax tur bi liggéeykatu total nee nañ balaa ñoo ñëw fii benn organe de presse filmé na leen ba poster ñom lu wax ci li ñuy dund ni est-ce que mot na 24 heures vidéo bi tepp kenn gisatu ko fenn vidéo bi disparaître dama leen di ñaan ngeen bañoo wax turu organe de presse boobu parce que porte presse taxu ñaa wax single li benn organe de presse taxu ñaa wax ñu ne vidéo bi total nag bëri na xaalis ñun xam nañ ko lire yu juddoogul sax xam nañ ne total bëri na xaalis total bëri na doole waaye lii du lii mooy defar réew de bu dee sénégalais yi dañuy wax ñu bëgg a nëbb lu ñuy wax bu dee sénégalais yi dañ leen di noot ñu bëgg a parce que c'est de la complicité c'est de la complicité d'assassinat social on est en train de tuer des travailleurs à petit feu c'est de la complicité ñuy noot liggéeykat yi yow organe de presse sa liggéey mooy <coughs> informé juste et vrai nga jël ba paré mbir mi disparaître évidemment soxlawul nga nek selbe ndoom pour xamné yow dafa am fuñu jaar ak yow mais bu boba kan moo koy yëg ñun ñokay yek ñun ñëpp koy yek. parce que dañuy neub sénégalais yi lu ñuy dund après dëkk bi day tak dañuy neub sénégalais yi lu ñuy dund te bu Boba, on n'aide pas le président de la république on n'aide pas le premier ministre on n'aide pas le gouvernement on n'aide pas le ministre du travail à aider les Sénégalais à être au service des Sénégalais Nous que xam nañ ne lii lu yàgg li fi Voyez, la continuité de l'État mon indi faut ñu nous réglions. et puis 24 mars nous ko def pour jël un nouveau départ départ bu est euh, donc nous de presse à ce que nous Sénégal accompagner la libération de la parole des victimes ndaxte ñi ay victimes la ñu de la victimes yi bokk nañu ci ñi nga Les victimes yi bokk na ci ñi nga xam d'accord dañ leen tëj kaso muy ay détenus politiques les victimes du système bokk na ci ñii ñu toll ci ay millions parce que c'est un petit échantillon ay millions de citoyens sénégalais yoo xam ne ñu ngi leen di noot mbokk yi ñu la sentiment anti-français pour wax pour jël kaawu total bo waxé ñu né la sentiment anti français ana sentiment anti français total mo leen gën a xam doful jinne japp ko l'opinion publique française n'acceptera pas di dégg né une entreprise française ak fu mu munti nekk ci adina bi mu ngi doxalé ni ci ay kat li ñu xamone moy séddale bi bukki bi ñuur bi samba waye total li muy def moy yow sama kat Dir Sangam, ma denk le bouki. bu jexé Sangam, sangam ma denk le njour bu Sangam, sangam ma denk le samba. dégg ngeen wa euh, licencié ay kijamono, ci état de grossesse rawatina ci jamono congé de maternité c'est un crime motax je nous invite surtout ñun nous ak jigen ñun jigen ak góor ëllëg ñu nan nangam jigen wala nangam lutter pour les droits de la femme moy façon yi, moy baram yi, te bi am et c'est pas la première fois fi ci salle bi def conférence de presse ay yoon ak ci entreprise yuy licencier ay en état de grossesse te bi muy am gouvernement ñàkkul jigen bi muy am assemblée ñàkkul jigen bi muy am HCCT nak ñàkkul jigen conseil économique social et environnemental ñàkkul jigen donc le débat n'est pas là le débat moy muy jigen muy góor muy góor muy jigen ndax dañuy xex notel te li ñuy def liggéeykatu jigen yi di leen di licencier arbitrairement comme sen un yu góor yi pire di leen di licencier ci période de grossesse ci période de congé de maternité du dëgg du yoon loolu la ñu war mu jóge fi góor bu ko defee baxna jigen bu ko defee baxna buñ ko defee ci gouvernement bo xamné ministre du travail c'est un homme ou une femme peu importe li ci am solo moy ñu moy ñu dindiko et inshallah dinañ ko fi dindi ndaxte comme ni ngeen ko waxé dina egg ci gouvernement d'accord bu premier ministre Ousmane Sonko xam nga liggéeykatu total yi total de leen par la force di ngeen signer protocole d'accord bi wala du ngeen jot décembre 2023. mais vous vous rendez compte mais total mooy kan mais total ku total xanaa dafa foog ne ñu ngi ba avant vingt mars 2023 enfin après je ne sais plus quand est-ce que ça s'est passé mais c'est pas grave c'est juste pour dire que 24 mars 2023, c'est un nouveau jour qui se lève au Sénégal muy bukki bu muy bukki bu ñuul lañu dama bëgg mu leer wuñu total am ay patron sénégalais yuy def la même chose sinon pire donc bukki bu ñuul ak bukki bu weex lañu fii nag bukki bu weex ñuy wax total mais li mooy lan di nga signer protocole d'accord sinon jot mais sa c'est un droit c'est pas une option ce n'est pas une option da nga parce que c'est la contrepartie d'un travail fait da nga liggéey fanweeri fan da nga koy fay amul ay signé le protocole d'accord bon xamné, négocier wuñ ko te protocole d'accord bu ñu protocole d'accord wax accord bu ñu waxee accord moy waxtan d'ego. ci cadeau, ñu soog a signé léegi yow waxtan amul d'ego, d'ego amul ndaxte waxtan amul nga ne ma ma signé bu ma signé wulé, do ma fay sama payor, décembre ci Atom 2023 loolu nous ko teg du dëgg du et il faut que mu jeex dina et nous citoyens sénégalais nous allons aider nos autorités à ce que mu jeex donc nous, nous bëggoon wax ci total et li ñu def du dëgg du yoon licencié ay jigéen ci période de maternité du dëgg du yoon dinañ ko yuuxu bu doyulee ñu dem yuuxu ko opinion publique française mu xam ne lii la Total di def en Afrique lii la Total di def au Sénégal est-ce que l'opinion publique française est d'accord pour que une entreprise française muy note ay liggéeykat di leen di dàq ba pare di ci dàqaale ay jigéen ñoo xam ne ils sont en état de maternité ils sont euh, en état de grossesse ils sont en congé de maternité waaye ñun opinion publique sénégalaise ñun itam duñ ko

soxlawul ngay toog ak moom ñuy ñuy compter xaalis bi ñuy gagné bés bu nekk pour xam ne mooy station bi ëpp xaalis ci Sénégal ci Afrique de l'Ouest waxuma Sénégal de ci Afrique de l'Ouest station Total bi ëpp lu muy jël xaalis ci Afrique de l'Ouest mooy station Total booy dugg VDN jóge Dakar di dugg VDN ci péage bi oh pourquoi je dis VDN booy dugg ci péage bi premier en fait euh, première station bi euh, voilà ngay dem en fait ci au Sénégal station boobu la mais station boobu dafa waroon nekk un modèle qui respecte des droits des travailleurs mais les bénéfices doivent être partagés équitablement justement entre travail entre le travail et le capital waaye ngay noot kat yi alors que yow yaa ëpp li ngay dugal ci xaalis foofu dafa waroon nekk une vitrine de l'entreprise totale pour ne voilà les bonnes conduites Wow. li moy taxaway yu mucc bi Lolu nak dafa wara jeex dafa wara jeex entreprise dafa wara fay l'impôt bu fayulé l'impôt ñu ko entreprise dafa respecter code du travail bu respecté le code de travail ñu ko solo ndaxte ci impôts yi la ñuy tabaxee ay tali la ñuy yóbbu courant ndox fu nekk la ñuy fayee xawma euh, enseignants yi policiers yi la ñuy yóbbee xaalis assemblée nationale assemblée nationale bañ ne moom kenn du ko contrôler waaye loolu parenthèse la woon donc impôt am na solo mais nekkinu liggéeykat yi tamit am na solo donc entreprise yi bu ñu respecté wul le droit social bu ñu respecté wul dañ leen war a teg ay daan ni ñuy fullalee fay l'impôt payum l'impôt

Bon, dégénage chambre 9, chambre 10, il y a 100 personnes, 200 personnes, rebus, madame prison pour rebus, il y a 200 personnes, mais qui est une toilette. Mais 400 personnes, 300 personnes, il y a une toilette. C'est ce que je veux dire. Quand y a un hangar qui est en train de se bagages qui sont en train de se du yon. Et donc, ou non, un contrat de 3 mois, vous avez fait le contrat de 3 mois. ay contrat de trois mois ba ilaa yow mi diin maanaam da ngay def trois mois ak bii société intérim defaat ak moom trois mois ñu centre la beneen société intérim nga def trois mois ak moom defaat ak moom trois mois ñu centre waat la beneen société intérim nga defaat ak moom trois mois defaat ak moom trois mois noonu noonu noonu ba ay at ñaari at ñetti at ñeenti at muy continuer loolu ba kañ ndax lan ndaxte avons fay liggéeykat salaire permanent te ay permanent lañu ay permanent lañu du lundi au vendredi ba samedi sax supplémentaire duñ ko fay 4 semaines sur 4, 12 mois sur 12. ah ay at mais kooku permanent la de permanent cotiser ko IPRES cotiser ko caisse de sécurité sociale cotiser ko IPM pour bañ def nga ne intérim la nga ne intérim la du dëgg du yoon moo tax foog ñu xoolaat mbiru intérim bi intérim baa ngi rey Sénégalais te yenn saa te yenn saa yi société yi lay def intérimaire société yi ngay liggéeyal ñoom ñoom moom société intérim yi maanaam ay tappale ak ay dóor dong la maanaam yenn saay yow Guy Marius Sagna yaa jël yaa fa mu mu nekk sa liggéeykat mu lay liggéeyal sa digganteeg moom mu am société intérim yenn saay man mii maa moom société intérim bi wala yenn saay comme nun doon demee ci jamono Macky Sall ay politiciens ak seen i xarit ñooy moom société intérim yi di centre te liggéeykat yi or liggéeykat yi du ñu ay bal ñuy centre rek centre naa centre naa centre naa centre naa dafa war a jeex dafa war a jeex te dina jeex et on va aider et soutenir le président et son gouvernement à ce que mu jeex il faut exhumer bu kenn nëbb bombe sociale yi nañ ko génnee mu ne fang nit yi xam ah kon ñun xamoon nañ ne mbir mi grave na waaye ndekete romb na waaw jéggi na dayoo foo ko àpp rek ndekete weesu na ko te bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy gis euh, fii ci uno douze ans d'intérim heure supplémentaire kenn du fay neuf heures ba vingt une heures deux heures de pause nga ne amul taxaw amul toog neuf heures ci suba ba neuf ci guddi ngay liggéey ci magasin Uno ñu ne la amul toog deux heures de temps pause mais yàlla mi ñu sàkk sax waxul ñu taxaw juróomi waxtu waxul ñu taxaw waxtu yàlla mi ñu sàkk kon entreprise yi ñooy ñan pour def lii def ko góor def ko jigéen donc buñ ko defee jigéen ça veut dire que def nañ ko jigéen en état de grossesse balaa moo jël congé de maternité moo tax kuñ fi wax ne am na ay fausse couche mais bum la bett bum la bett lii nag dafay jeex lii nag dafay jeex bu dee féminisme mooy lii soyons des féministes waaye nañu bàyyi ay féminisme tappale droit des femmes lii la nañ ko régler te dinañ ko régler inshallah. donc man bëggoon wax di ñaawlu et di wax ne ah dina egg fi nga xam ne foofu la waree egg et euh, ñun nag pare nañ ko def médiation waa agitip dégg ngeen leen dégg ngeen waa waa euh, dañ doon def euh, ak fabrication dañoo waroon dañ doon def fabrication de pavé loolu moo waroon nekk seen liggéey dégg ngeen 168 travailleurs la ñu xëy 168. ñenn ñi signé un ay contrat janvier 2002 février 2022 janvier 2022 février 2022 mars 2022 contrat at ñu dem ba juillet 2022 ñu arrêté ko brutalement ak dégg ngeen li mi li ci Ousmane Tek ñu teg ko fan loolu du dëgg du yoon donc AGETIP dafa war a fay li mu war a fay AGETIP dafa war a respecter loolu yëpp pour lan pour ni waa Total def ñu dàq leen teg seeni jarbaat seeni xarit seeni clientèle politique kumba am nday ak kumba amul nday dafa war a jeex ci réew mi amul man mbokk Guy Marius Sagna la et que Guy Marius Sagna dafa bokk Pastef donc waaw nañ ko cëral ndaxte jarbaatam la wala mbokkam la du fi am du fi am amul ay diw mbokk gi mari Sagna la donc dañ koy jox enfin du sax donc bu machine agricole machine dañ koy jox non kumba am ndey ak kumba amul ndey fay jeex donc Agitip ne li muy def motax tamit ñun comprendre nañu nomination DG yi DG ñoy continuer li amna DG yo xamné ne bu ñu leen de dañuy continuer Ligue kat yi dañuy continuer di mooy bomb yi ma doon wax yow xam nga ne lii la desee une semaine la wala un mois ngay continuer def ay recrutement waa Dakar Dem Dikk nee nañ ma xaw ma ba tey jii nii directeur Dakar Dem Dikk moom xam na ne li ko dese yàggul ñaaw na ba noppi mais fexeel ba mu ba mu rafet waaye ñaaw na ba noppi ngay def loo xam ne dafay gën a ñaaw jeex na yow xam nga ne jeex na jeex na looy recruter ñu bees looy yokk ay payoor te xam nga ne ki lay wutu dans une semaine dans quelques jours nga xam ko hein élégance républicaine lii du courtoisie républicaine li moy homme d'état ndax li moy homme d'état Comme homme de détail comme femme de détail mais lii du homme d'état du femme d'état donc wa UNO ñu ngi may xamal ne faté won nañ ne sen cotisation tamit IPRES kenn versé wa Total tamit ñu ngi may wax la même chose moy lu ñuy woowee évasion sociale amna na lu wax évasion fiscale manam ño xamné duñu fay l'impôt dañuy fexé ba jema nax état duñu fay l'impôt moy lu ñuy woowee évasion fiscale mais amna na lu ñuy évasion sociale moy entreprise yo xamné duñu du ñu déclarer seen liggéeykat wala bu leen déclarer du leen fayal et pourtant ñu ngi leen di dag ñu ngi leen di dag di leen di ponctionner et pourtant liggéeykat yi buñu démé demee ñu ne leen kenn musul cotiser.

ndaxte yaa ngi koy def journalier yaa ngi koy def prestataire yaa ngi koy def intérimaire payoor bi matul nga koy dagg ba pare doo ko verser lii day jeex évasion sociale moom dinañ ko lijjanti ni ñuy lijjantee évasion fiscale noonu la ñuy lijjantee évasion sociale ndeysaan da ngay gis liggéeykat mais liggéeykat yoo xam ne liggéey vingt ans ñaar fukki at ak juróom dem retraite tàllal loxo seen pension mu njëkk ñu ne leen kenn mësu leen cotiser ngeen fa ne yoon la te loolu moo fi bëri donc pendant 25 ans kenn versé wu ñu lay dagg ñoom ñu koy lekk ah man de yërëm ministre du travail yàlla na ko yàlla dooleel dëgëral taxawaayam ndaxte am ci président de la république Bassirou Fay, bale dañoo war a bale IPRES ak CSS bale boobu dañoo war a bale les entreprises bale yooyu dafa war a bale mbooleem entreprise ndaxte dañuy noot liggéeykat yi waaye tamit am na loo xam ne nag bale Bassirou Diomaye Diakhar Faye mënu si dara de boobu nag bale liggéeykat yi moo si mun dara ndaxte lii bu amee tamit c'est que central seen central syndical yi seen liggéey xaw naa des

xana li gisuñu ko xana li dégguñu ko ah lutax ñu ne pat ah di ñëk euh, di njëkkante bokk ci ay conseil d'administration di jël ay xaalis li euh mom moñu fi indi won et donc dinañ informer gouvernement bi de manière officielle euh, dinañ leen informer de manière officielle dinañ ko top de manière officielle am nañ yaakaar ak kóolute ci gouvernement bi waaye mënuñu ñàkk mënuñu ñàkk oui sauf que ce n'est pas la conférence de presse du centre Talibou Dabo <laughs> ñu ngi may naan waa centre Talibou Dabo fukki weer ak juróom benn kenn fayu leen motivation bind naa déjà bind naa déjà euh, la question écrite naa ko déposé waxtu yi di ñëw c'est que nag bon allez conférence de presse bi tamit dafa am euh, ñu ñu si nekk mën nañ woote dinañ woote incha allah yeneen conférence de presse